Assalamualaikum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ya ñi ñi siiw ñep ci seen chaîne sama xalaat TV ñu leen nuyu di leen ziar professeur Ousmane Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar comme ni ngeen ko xamé professeur Ousmane Ndiaye la ci dalal sax semaine mu waxtaane fi benn jangoro wax ñu ay solution yu ñu am euh, ñu ñëw tamit ci benen rubrique bo xamantene moy plante de la semaine buñ ci juggé après dinañ ñëw ci benen vidéo bi mujj bi muy li nga moy fruit de la semaine wala légume de la semaine vidéo tay bi nag euh, plante de la semaine bi lañuy ñëw garabu dàmbal la ñuy ñëw nga ah, xam naa dina bëri ñoo xam nag duñ ko xam mhm. ñoo xam sax xëy na mosuñu ko dégg waaye garab la mi ngi fii ci réew mi mhm. professeur ñëw euh, tey pour waxtaan nañ ñu garab googu ah, lan mooy ay vertus maanaam ay njariñ yi nga xamante ni am na ko yu mën a jóge ci garab bi jëm ci doomu aadama yi moom la ñu professeur di baaxee tey kon professeur ñu ngi lay nuyu di la ziar Pape ñu ngi lay fay di nuyu ñi nga xamante ni ñu suivre ñëpp ci sama xalaat TV mhm. euh, di ñëwaat rek ci comme ni nga ko waxee plante de la semaine mhm. plante de la semaine bi nag tey ñu ngi koy waxee dambal mooy garab ngay wax nga xam noonu la ko olof tuddee mhm. donc garab la goo xam ne xam naa ñu bëri xëy na duñ ko xam mhm. man comme ni ñu ko expliquer mais gu bëri njëriñ la pap euh, gu bëri njëriñ la ci wàllu faj muy ci xob yi muy ci reen bi muy ci écorce bi muy xas bi ak euh, parti yépp daal xam nga garab suñ koy wax dañuy wax les parties partie mooy lan mooy xob bi wala xas bi wala reen bi wala fruit bi wala tóortóor bi loolu la wax ne ci garab gi la bokk waaw loolu la ñuy wax li ci kaw li ci digg bi la ca suuf kay <laughs> garab la ñuy garab <laughs> léegi nag am na garab yoo xam ne xob bi nga jël wala reen bi wala am na loo ci jël daal pour mën a faj mais moom léppam léppam day faj parce que yëppam benn la Ah, doom bi doom bi doom bi boobu xam naa ne dinañ ko di ko génnee doom bi fa xaw a gudd waaw ah, comme bu xaw buy la xaw a ndural tuuti waaw kay waaw dañuy xaw a lang noonu voilà d'accord mel buum bu gudd tey bu gën a gudd waaw. mooy ngeen di gis noonu voilà. waaw defe naa Kigeria africana africana ah. mooy non scientifique. bi. donc ñu bëri moom lañ ko gën a xamee. mais Pape am solo nag bu ñu ko te ab garab non scientifique bi toujours bu ko di fàtte. yenn saa da koy fàtte nag mooy gën a yomb non scientifique boo koy wër pour nga gis garab gi. garab gi waaw mooy gën a yomb que nga ni ñu koy waxee fii léeg-léeg. effectivement effectivement. donc non scientifique bi parfois waaw non scientifique moom mooy non boo xamante ni. mooy adduna bi ñoo ko yëpp ñoo ko moom. même tur boobu la ñuy woowee garaaw. voilà tey boo doon ngeeraa sénégalais sis rek. la ñuy wax mais chinois beeg ñëpp a koy xam. ñooy wax ngeeraa sénégalais sis. mais ñu bëri ñi nga xam ne dañuy utiliser ay pommades. Mhm. maanaam yu yokk sàkkaraak yokk ngóora ak yokk ay ween wala yokk ay hanche. Mhm. en général garab boobu lañ koy defaree. Hmm, xam li nga wax waaw ñi nga xam ne bëgg seen ween yi yokk mhm. wala seen hanche yi yokk mhm. wala am ñoo xamante ne ñu bëgg seen sàkkara bi yokk hmm. yi ñu ciy defar. soit ah, en de yëfi dof yi ñuy def rek. waaw kay. <laughs> la. mu ngi noonu mais dafa dox nag Pape. ah nit ñi ci yëfi dof lañ dafa dafa dox dafa dox dafa dox macha allah man ñi may woo di kenn xamul nu mu am na am na sax ay projet lañ ma ciy tëralal mais dama wax ah, ngi nii ci toog fii di wax lu am solo. <laughs> am na koy nekk fee di saaga moo la yëpp nit ñu koy seetaan yëfi dof yëfi dof <laughs> moom dox na Sénégal te dafa dafa dafa dox léegi dafa mhm. dox loolu mais daal gars yi ci la ñuy defar pommade yooyu. Mhm. di wax day yokk kàttan day yokk awra góor ak wala mu yokk hanche wala mu yokk ween ak yu demee noonu donc. en tout cas gi moom garab gu gu gu gu généreux la. généreux waaw a la. yaatu nii voilà doom yi tamit noonu la mën a rëy. xaw ma nag ndax am na relation. léegi ko noonu lañ koy koy defaree quoi. Mhm. léegi doom bi la ñuy jël def ko sous forme de pommade ak yu demee noonu wala karité à base de mhm. karité sa. yaa xam ne defaree sa pommade daal. Mhm. moom nga koy defaree ñu bëri moom lañ koy defaree. donc mooy le cagelia africana boobu. mais nag ci wàllu vertu maanaam ci wàllu médecine. médicinal dafa waaw dafa bëri lu muy lu muy faj. Mhm. lu mel ni biir bi metti mhm. daf koy faj. ci yëpp rek maanaam su ma nee domaine yëpp c'est-à-dire xas bi. Mhm. reen bi xob yi. ak doom bi. doom bi da koy jël euh, daggate ko comme que mu ngandee noonu. doom bi dañ ko lekk. waaw nañ koy lekk. jël daggate ko noonu. def ko ci ndox. def ko infusion wala nga kii ko noonu. di ko di ko naan. d'accord wala bu fekkee reen bi nga jël. Mhm. Euh, reen reen bi moom surtout. baax na ci ñi nga xam ne dañuy am problème urinaire les li nga soxla appelle. Mhm. incontinence urinaire ñi nga xamante ne duñ mën a téye seen saw. waaw ah, waaw waaw parfois dañuy genre prostate. bu ñu sawee saw gaawul sawee rek day rëcc. waaw ah. donc reen bi baax na ci. léegi bu fekkee tamit ci wàllu prostate. moom xob yi yeeg reen bi boo ci jël tamit mën na ci mën na koo mën na koo mhm. donc bu ko defee ci wàllu constipation. Mhm. pour le mooy biir bi métte yooyu. Mhm. comme ni ma ko waxee sax boo ci jël rek ci ci reen yeeg xob yeeg yooyu. moom it xooj ko loolu infusion wala infusion infusion bu fekkee tamit ñi nga xam ne dañoo am problème mu règle. règle boo xam ne day metti waaw ah, douloureuse wala règle boo xam ne c'est irrégulière maanaam mm-hmm. normal day jaxasoo day dagg di dem di ñëw mm-hmm. boo ci amee doom bi wala kii bi nu mu mm-hmm. xob yi xob yi wala xas bi wala ree bi boo ci jël rek sa équipe bu ñoo yam doxel mën na ko mën na ko saafara ñi nga xam ne nag dañoo am problème am doom mooy infécondité wala problème fertilité que ce soit muy góor fertilité masculine ou fertilité féminine muy jigéen mhm. nga xam ne doom da leen a jafe mhm. ñoom bu ñu amee doom doom bi waaw doom bi ngay ah, bi waaw en def ko la neexee def ko wal ko def ko sunguf waaw boo ko daggatee bàyyi ko boobu weer ko boobu def ko sunguf nga def ko sunguf mhm. di ko jël moom baax na ci ñi nga xamante ni dañu am problème mu am doom luy demee noonu même ñi nga xam ne am problème mu fibrome fibrome ñu am fibrome kooku naa war nañ ci ñoom man dama koy dégg fibrome boo boo boo amee boo ko amee doom bi Mm-hmm. am sungufu sump moom it. sungufu sump sump waaw ak sungufu am na garabu gu yax bànqanaas mm-hmm. soo leen boolee ñoom mën na di ko jël mën na dem ba dindi fibrome boobu. Mm-hmm. garab gu ñuy wax nga ne. banqanaas banqanaas waaw boobu maa ngi koy soog a dégg garab de waxuma xam de maa ngi koy soog a dégg eh. dégg banqanaas waaw garab am na fii garab disponible la de disponible na garab yi Pape mhm. bi ñu commencé def vidéo ba léegi defaguñu un millième bi <laughs> a plus de cinq mille espèces ci garab yoo xamante ni ñu répertorié waaw presque ci li baax ci yi nga xamante ne xam nañu day faj. day gay garab yi faj léegi yi faje yi nga xamante ne garab yi xamaguñu ne day faj. trouvé guñ lu muy faj trouvé guñ lu muy faj moo ëppati. kon kenn mënut utiliser lépp. 5000 espèces yoo xam ne moom xam nañ ñi garab yi day faj. day faj waaw kon kay loolu loolu ku ko mën a ku ko mën a ku ko mën a yàlla kenn a jeexal da ngay ci yi nga yi nga. benn baa ñaar la ñett rek leer nga wax. wala ñett rek wala ñeent day xam mhm. léegi nag yow yaa xool say composition say garab exemple mhm. man su ma jëlee garab nangam ak garab nangam ak garab nangam mélangé ko à ci benn dose bi mhm. ne moom fajal siti ma def ci expérience bay faj sama siti ci garab loolu siti nii laa koy fajee donc dinaa ci amaat yeneen recette waaw mais boo ci yaa ngi def bii yaa ngi ci amee ah, wu ci boobu bu dee hémorroïde nga jël bii ak bi ak bii di ci faj bu dee tension mii bu dee diabète mii bu dee ainsi bu ko defee boo amee si une dizaine mhm. garab. Mhm. parce que loolu laa yor. rek mhm. li ci des nga bàyyi. a ci des nga bàyyi waaw. c'est-à-dire tamit mënuñu. ah booy a jëfandikoo ngay jëfandikoo. jeex na loolu mooy. <laughs> li ci des comme nii boo ko mënee baaxal nit ñi baaxal. waaw kay yenn saa nit ñi dañ lay wax ay fibrome ay nangam nangam. yëpp di ko xam loolu du ma dama naan du ko faj. mais xam-xam ba xam nga ko mais mënoo koo dugal ci sa ci sa ci sa kii ni ñu koy waxee ci sa waaw la programme programme quoi man noonu laa doon noonu laa doon xam nga moom du ñëpp nag quoi. non loolu sax mooy yoon nag waaw yoon nit lu mu nit mënti daal nit dama koy faj. waaw loolu sax à la longue. donc loolu loolu bu defee nekk lu xorom quoi. waaw bu ko defee nag garab yi kenn mënu koo jeexal paap. d'accord garab yi kenn mënu koo jeexal man li mais mais garabu dambal moom am zone bu mu fii parce que man ay benn benn laa ay benn benn xam naa côté Saalum waaw côté Saalum bi moom mosuma fa dem. waaw ah, mais fu a bëgg que que man li ma gis yëpp mbaaw bi daal. da nga koy gis ak université man am na fu ma gisoon daal ah. université ah, fa benn ak. Euh, est-ce que du demee noonu waaw foofu am nañ benn kii botanique jardin botanique je crois université am nañ ko waaw université na moom def naa fa ay recherche yu bëri moom bi recherche donc ay benn benn daal la bu dee bëri moom noonu quoi ah, xëy na nag mais ci ah, àll parce que nag waaw naa ne garab yi bëri Saalum lay am wala Saalum moom dafa bëri ay garab loolu dama koy dégg Saalum dafa mhm. moom taw bi gis nga moom xëy na zone yi xëy na mu bari fa quoi mais nag garab bu ñu war a protéger la. waaw parce que garab bu ñu gaa yëpp nañ ko trop. non non dafa bëri dafa bëri njëriñ Pape. Mhm. bëri njëriñ xam naa ni njëriñ yëpp yëpp sax duñ ko mën a duñ a wax. Mhm. daal bëri na. ah amee yoo ci mën a bëri na yoo ci a dolli rek. <laughs> bëri na lu muy muy non wax dëgg yàlla. Mhm. moom c'est boo xamante ni. yi. mënuñu ko àpp ko àpp daal. waaw ah, bëri na waaw ah, mais yi ci wax nag am na solo moom. waaw wax. donc bu ko defee. Mhm. mooy plante la boo xamante ni dafa dafa bëri njëriñ. Mhm. boo demee ci comme ni ma ko waxee wala sànq rek cosmétique bi. Mhm. lu bëri ñu ngi koy commencé di utiliser ak lu xam nga Sénégal fugg bi moo leen di yóbbaale maanaam comme nuñ ko mën a waxee. teel euh, ni damm na rek moo leen di yóbbaale cest à day day day day jar nag. am def benn affaire ba am ci ay expérience. da koy commercialiser waaw c'est vrai c'est vrai mooy Mm. donc bu defee noonu la ñuy def waaw lu ñuy joxe dañ koy dañ koy testé voilà testé ba pare mm-hmm. ba mu ba mu ba mu dox. Mhm, waaw kay bu ñu demee gis na ak gis nañ euh, mu commencé génne secondaire yi ñu xamul woon. Mhm. ñu arrêté xoolaat ñu mhm. loolu la faj war a doxee. waaw faj moom faj solution mooy nit ki wér. garab gi warul nekk saafara buy jur jàngoor. a bàyyi xel. kon xam naa professeur loolu euh, am na solo kon garabu dambal dinañ ko gën a gën a gën a fonk. fonk waaw ah, a fonk. man moom xamoon naa ne xam naa ne am na xamoon naa ne day faj la tax ma xam day faj xaw nag lu muy faj parce que dama ko mos a foore mbaaw dama ko daan dem ba temps gën nekk ma nekk ma gën a nekk xale mhm. bi ma nekkee xale <laughs> waaw bi ma a nekk xale bi ma nekkee xale mhm. dañ doon dem ñun groupe boo xam buñ jàngiwul dañ doon dem foore mbaaw di tey darkase mhm. par nawet darkase lu xam nga foofu effectivement voilà léegi dafa am un jour ñu ma son garab ma xam ni dindi reen yi quoi moom sax moom xob yeeg yooyu yóbbu moom reen xam naa la soxla woon waaw yóbbu reen yi comme xam ne kon lii peut-être euh, dafay faj moo def loolu li mu def lu ñaaw la mhm. mais mais faj moo faj tax xëy na mu def ko mu def ko mais ko defee noonu mën mhm. ah, nga ut ci reen yi te doo déej ji garab garab ay at la fi nekk soo ko toll noonu mhm. garab bu ngand la loolu leer def na fi ay dix ans wala vingt ans soo ko toll noonu dafa dafa xamul sax c'est-à-dire mooy liñ doon wax sànq hmm. c'est-à-dire xam nga xam li mag ñi di wax ni am ko te xam ko hmm. ak ñàkk ko maanaam am ko hmm. te xamoo ko nga ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën. dëgg la. comprendre léegi moom su xamoon ni reen li mu mën doom bi mën na ko wala xas bi mën na ko. loxo bi mën na ko bañ a déjati. te mën na wuti ci xob dem yow. bàyyi fa garab bu garab bu soxlaa ñëw ñëw daaj. <laughs> mu ngi noonu. donc bu ko defee nag loolu mooy problème bi moo tax xam toujours dafa baax gis nga xam. xam nga même ci lislaam sax ki xam. ak ki xamul duñ bokk. ah waaw yàlla kay li mu wax leer. <laughs> <laughs> waaw kay léegi léegi moo tax nag eh, nit ki lépp lu mu def Pape da ko war a xam. Mm-hmm, dëgg la waaw loo xamul rek di ko def rek yaa ci erreur. allah dara de loolu la la ñu foofu la ñu rawee ñu def lañ koy maîtriser. waaw ah, c'est vrai. waaw sinon da nga da nga ah, kay yàlla moo ñuy dimbal rek. waaye ñun suñu bopp nii man ni ma gisee ñuy fonctionner mm-hmm. bu ñu yàlla seetaanee nii dañ ne duñ gaaw am solution xanaa yàlla moo ñuy dimbali rek daal jékki-jékki xam yàlla léeg-léeg mu def ko mhm. defaloon na ko xeet yu bari ñu jiitu mu jékki-jékki ñu nekk situation boo xam ne leer na ko ni ñii mënuñu génnee seen bopp dugg nañ situation mënutuñ ci génn mu jékki-jékki moom si boppam jël décision génnee leen voilà defal na ko waa Israël defal ko ñeneen ak ñeneen ci ay jamono yu bari mhm. duñu dugg si détails yi ñoo xam ne ñi woon ci guuta mhm. mu jékki-jékki rek indi kenn koo xam ne moo leen di mel ni rek da leen da ànd ak ñoom ne leen akaale ñu génne leen situation bi yàlla nañu yàlla defal Amin amin amiin amiin salaamaaleykum kon ñu ngi lay remercier professeur ci euh, baaxe gi ñu doon baaxeloo ci garab gi mooy dambal euh, xam naa euh, vidéo bi si topp hmm. dañuy ñëw ci li nga ban fruit laa la waxoon. raisin raisin <laughs> raisin man dama koo bëgg lool nag. Ah, macha allah xam nag lan lay def <laughs> kon ngi jox rendez-vous vidéo allah rabi ñuy nga fruit bi nga xam mooy. raisin incha allah jërëjëf merci merci.